dalati leen ak jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi ci site internet bi dañu koy dooree ak ndaw si génn àddina di wuyoo ci turu Iba Thiam Iba Thiam moomee rédaction bu bër set bëgg leen a xamalee ana kan moo di Iba Thiam ginnaaw ba mu nekkee ab sénégalaise waaye tamit daal dina yor ab nationalité française yaayam daal di nekk ab marocaine Iba Thiam daal di bokk ci famille muxaddama bu mag bu Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass Iba di fekk baax ci waa na ko mariste ginnaaw fa mu dalee baa daal di fréquenté école bi ñuy woowee mariste te nekk ci diwaanu ko Anna Iba Thiam naka noonu la fi bàyyeekoo ci réewum Sénégal riir wutali ca France ca France googee nga xamante ni nag Iba Thiam fa la demoon ngir jàngi ji njàngam googee mu demoon jàngi ji demoon na fréquenté benn école de management bu nekkee ci diiwaanu ko Lyon moom sax dal dina fay am diplôme master en finance ca waxtu boobee Iba Thiam di dellu si fii ci diwaanuk Sénégal ci Sénégal gi mu fekk baax mu daal di nekk directrice administrative et financière bu acte acte daal di nekk ab société bu nekkee fii ci diwaanuk Sénégal Iba Thiam moomee sax de ku ko xam xam ne xale bu jigéen bu bëggoon dund la maanaam dund dund gu neex ndaxte kii di Iba Thiam gënoon naa ràññeeku loolu ñu ràññee ko ba ci ay photoom yoo xamante ne ci biir avion yi la ko doon def ndaxte loolee moo nekkoon bëgg-bëggam li mu gënoon a bëgg bokk na ci di dem ay voyage waaye tamit di xool ay endroit yu rafet te chic am classe mu koy fréquenter ay voyage li ci ëppoon sax ci diwaanu Paris Bordeaux Miami Égypte Casablanca Turquie ak Cap Skirring waaye tamit ay hôtel yu luxe yu nekkee ci diwaanuk Dakar daana ko fréquenté ci diwaanu ko waaye tamit fii di Cap-Vert daana fa dem ngir ay balade Iba ku ko xam-xammee ko ci hélicoptère yi doon doxantoo ak i avion di yéeg a ko wàcc bés bu yàlla sàkk Hiba Thiam daan fréquenté réseaux sociaux yi waaye taxul ñu ràññee ko ci ndaxte lii di compte Twitter am na ko ci atum 2010 Facebook Instagram fépp footi ji di nga fa fekk Hiba Thiam waaye taxul woon mu ràññeeku ci réseaux sociaux yi Hiba daal daa dinay ñàkk bakkanam ci melokaan wu doy waar loolee sax moo tax saa sile tembe kooram ñu ngi ko daal di jël teg ko ca l'hôpital ngir fa yéene amal ay autopsie autopsie yoo xamante ni nag dañuy xool ana lan moo fàtte kii di Iba Thiam naam sax ñenn ñi ñu ngay xamle ne overdose la waaye lu ci mën a doon rek laaj ci daal nay samp ginnaaw ba mu bokkee ki këru kilifa diine gu mag ca waxtu boobee nag ñoom li ñuy sàkku rekk ci yoon mooy mu daal di leen di jébbal seenub néew ñu mën kaa defar ba mu yemb daal di koy jébbal suñu boroom ca diwaanu Kaolack Kaolack googee nga xamante ni famille Iba fa lañu fekk baax